bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin sayidna muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal mbokki jullit yi fi ñu mën a nekk ñu ngi nuyu ñëpp nuyoob lislaam di jotal nuyoo alxalifa Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass di sant yàlla ci teru tey weeru mawlid nabi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yàlla moo ko yónni mu yërmande ñeexal mbooleem mbindeef yàlla tabaraka wa taala niñ ko baaxoon di ko aada di feetu muy juddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw gëstu wérlu nañ ne démb ñaar fukki juróom-ñeenti weer wi gisuñ ko fenn kon tey mooy fanweeri fan ci weeru safar ëllëg dimanche mooy benn fan ci weer rabiul awal loolu mooy ne bési gàmmu dafay nekk àllarba 27 septembre guddik alxemes ci la ñuy def gàmmu fii ci Medina ti Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu ngi ndokkeel mbooleem jullit ñi ñi ngi ndokkeel Sénégal ñi ngi ndokkeel eh, sëriñ bi ci mbooleem réew mi ndokkeel président de la république ndokkeel ay ministre ak ay jëwriñam ñëpp ñi nga xam ne ni liñ leen di ndokkeelee mooy weer wu tedd wi yàlla dana leen ci ubbil bunt pour ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy ànd ak askan bi ci feetu e, guddi googu nga xam ne guddi gu màgg la koo xam ne fii ci Medina dale ko ci benn fan ci rabe guddi gi sax tey bët bu set feet la ba bési gàmmu ñu ngi ñaan yàlla ñu àgg ci ci jàmm yàlla may ñu gàmm goo xam ne gàmm gu nangu la yàlla wëttu gan ñi ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñu ngi dénk tim autorité yi lépp luñ mën a def ci yombalal gan ñi nga xam ne nii ñu ngi bàyyi seen dëkk te mënoon faa toog gàmm bàyyi seen njaboot mënoon faa toog gàmm tànn Sénégal tànn Médina pour ñëw gàmmoog ñun ñi ngi ñaan autorités yi ñi facilité facilité leen seen yoon yombalal leen lépp loo xam ne dana leen dimbalee ci ñëw ci gàmb bi rawatina ñi jugee Mauritanie ndax at mu jot ñi ngi jànkoo ak te ay gàllankoor yoo xam ne xam nañ ne yaakaaruñ ne am na kenn ku ko jublu waaye ñi ngi fàttali ñëpp ne rek ñoo ñooñu gani ñëpp lañ gani Sénégal lañ gani Medina lañ gani Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñi ngi ñaanal ñëpp ñi nga xam ne tim ñoo nekk di yëngatu ci lépp loo xam ne dana yombal gàmmu gi bañ gàmmu ci jàmm gan yi dellu ci jàmm bàyyi barke loolu ci senegal waaye yóbbaale ñoom it barke loolu ci barke Cheikh Ibrahima radiallahu anhu barakati Mawlana Xatmi Tijaani jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum